màggal gi ñu organiser ko ci foo xam ne euh, hivernage installé woon na déjà ndox mi xaw a bëri ci gox bi yëpp mais aussi tàngaay bi amoon yooyu dinaa ci ñëwaat conséquences yi mu am ensuite forte mobilisation pèlerin yi màggalu ren gi aussi képp kuy observateur seetlu nga ne nit ñi bëri nañ trop mais aussi dañu teel a ñëw ba pare xaw a yéex a euh, xaw a yéex a dem ce qui fait que unité bi évidemment travaillé na avant le màggal comme ni ñu koy def pendant le màggal et aussi bien après le màggal sur le plan stratégique ñu sant ci yàlla sant aussi les partenaires du comité d'organisation et en premier lieu le gouvernement qui est le premier partenaire du comité d'organisation euh, màggal gi màggalam la Et sur le plan de la santé, évidemment, c'est aussi le premier partenaire par le ministère de la Santé, par la région médicale de Djurbel, mais aussi le district sanitaire de Touba. Ah, non seulement amul woon problème mais màggal gi amu ci benn njeexit te loolu ñu ngi ciy insister génn nañ benn communiqué il y a moins de d'une semaine relaté na bu baax ce qui s'est passé et nous nous retenons le chiffre mais le chiffre 3 dans le sens très favorable bu dee épidémiologie mooy lan 15 jours avant la màggal ñi ngi woon autour de 900 cas 15 jours bu ñu colligé yëpp bi màggal gi semaine màggal gi ñëwee ce chiffre a été divisé par trois ñu nekk ci trois 300 cas autour de la journée même du màggal 300 cas la semaine boobu yëpp bi ñu ko trois 300 la nga defaat 15 jours après. ce chiffre a encore été divisé par trois ñu nekk ci cent cas pendant jours après le maggal kooku moom boo ko analyser sur le plan épidémiologique doy na pour ne màggal gi comme daaw wala même de manière plus prononcée que daaw amul benn njeexit ci évolution Covid bi au Sénégal si on regarde seulement chiffre épidémiologique yi boo xoolee aspect scientifique bi moo tax ñu sant tey bi ñu génnee communiqué bi d'ailleurs gis ngeen retour yi retour yi moom mooy retour presse bi mais c'était favorable mais surtout ñun li ñuy surveiller ñun mooy retouru scientifique yi te gisuñu benn scientifique boo xam ne élevé na ci dara loo xam ne lu dul li ñu wax la ñun nag chiffres yi ñuy wax ce sont les chiffres officiels kooku moom lu leer la dañuy dem à la source chiffres yi nga xam ne ñi yor Covid bi moom la ñuy publier chiffres yooyu la ñuy jël étudier ko analyser ko sommer ko génne ko te kenn du ci laal dara donc màggal gi amul impact boo xam ne dafa feeñ ci Covid bi lawalu ko li ñu do li ñu mënoon xaar nag mooy mu lawal ko c'était légitime ñu xalaat ne da koo war a lawal mais lawalu ko fenn ci Sénégal may insister ni chiffres yooyu aussi ce sont les chiffres au niveau national. du chiffre Diourbel parce que daaw bi ñu ci communiqué ñenn ñi dañu foogoon ne région de Diourbel la wala Touba non c'est le niveau national. parce que loolu aussi lu ñu étudier scientifiquement la ak comité d'organisation l'étude a été faite euh, il y cinq ans il y a quatre ans précisément xam nañ gox yi nga xam ne yépp fa nit ñi di jógee di màggal si mais aussi gox yi ñiy gën a jóge pour màggal si xam nañ ko mooy Dakar Thiès ak Diourbel. si mais nag ñun niveau national bi lañ xool donc amul benn cas de Covid bu ñu échappé quinze jours avant la màggal quinze jours yi wër màggal gi quinze jours yi topp ci màggal gi donc chiffres yooyu c'est des chiffres avérés vérifiables qui montre que màggal gi favorisé wul propagation Covid ici au Sénégal. contexte Covid bee tax ñu ñuy wax ci Covid bi lu bëri mais màggal gi en réalité ñun bu ñu jëlee chiffres yi te loolu it collecté nañ ko ba pare dañuy gis ne période de consultation bu xaw a sakkan la daaw ñuy woon ci 21000 consultations recensées officiellement am na ci quelque uns yu ñuy échappé c'est normal parce que benn daayira bu installé benn antenne am signalé ko am na yu muy def ren nag déploiement yooyu. moo tax on est à 31 000 maanaam euh, fanweeri junni ak benn malade yoo xam ne consulté nañ leen xam nañ sax pathologie yi li leen gën a indi te gisuñ ci woon benn pathologie buy génn yi ñuy gis maanaam feebar yi yu mel na màggal wala sax yu eggul ci màggal c'est lool la ñuy wax les pathologies communes de manière général mooy ay problème mu respiratoire nga sojog yooyu ñëw mais surtout ay problème digestif bari woon na ci ñoo xam ne it dañoo amee tension wala jabet ñëw surveiller wuñ seen régime mu yokk tuuti amoon nañ ci mais surtout contexte nawet bi ak tàngaay bi fi amoon li wër màggal gi jour màggal gi sax tane na température bi baissé woon na mais li ko jiitu bis bi ko jiitu ak bi ci topp dafa tàngoon trop mais aussi nit ñi li ñuy rang tax na li ñuy wax insolation maanaam les coups de chaleur xawoon na ci bëri loolu moom képp ku doon consulté ci màggal gi seetlu woon nga ne ñi doon miir ak ay bopp di metti parce que dañoo yàgg ci soleil bi ci tàngaay wi ñooñu ñëw ci ëppoon donc Covid ëpp ci woon du yi ci ëpp mooy yi nga xam ne dañ koy gis bu nit ñi dajee ci période du tàngaay am na aussi effort yu ñu seetlu mooy yi nga xam ne mooy les problèmes alimentaires maanaam euh, ñam woo xam ne sellul na mu war a selle wala denc ba demewul noonu wala mu jóge ci mala boo xam ne it vétérinaire yi gëstuwuñ ko wàññeeku na loolu aussi benn résultat la bu intéressant loolu nag mën naa am communication bi am autour du màggal joué na ci li nga xam ne agent communautaire yi dañu wàccoon dugg ci kër yi di waxtaan joué na ci mais aussi la part du ministère de l'élevage ak ministère de la santé service d'hygiène li ñu inspecté beaucoup d'animaux def nañ li ñu man yépp ba xool li ñuy rey est-ce que am na am na feebar wala de def nañ ci liñ man loolu aussi je crois que résultat bi tax ces pathologies digestives là ay feebaru woo xam ne ci ñam lay jóge wala feebaru biir bariwu ci woon voilà donc en résumé li nga xam ne mooy résultat yi di ci sant yàlla rek léegi nag ñun li ñu sedd woon aussi euh, mooy en réalité Covid bi commencé woon na baisser avant le màggal moo tax on était serein te ci suñu plan d'action dañu inscrire woon daaw ñaan yi ren nag sëñ bi jiituñu ci ñaan yooyu te ñun li ñu seetlu bien avant la màggal décrire ko ci suñu document yi mooy le 11 août la ñu defoon ñaan yi wàcc kaamil journée du xasida le 15 août le chiffre Covid yi commencé di wàññeeku di wàññeeku di wàññeeku progressivement ba gis ngeen chiffre yi tey